parce soo nekkee ñun ci suñ sotaay li ñu gis mooy ñun jigéen ñi amul kàddu ñun amul kàddu fenn dañ dee ñëw wax ak góor yi waaye du ñu dee doglu du ñu dee faale ñoom ñu ngi toppa seen intérêt lu gën a bari ba tax ne jigéen yi ñoom dañ dee dellu gannaaw pour ut affaire yi politique ndax dañoo wax ne politique góor a ko moom yi nekkul ñoom waaye man nag dama ñëw ma ne xaaral ma dugal si biir ànd ak góor ñi di waxtaan ak ñoom bañ nangul ma